Fatou Seen mu defal nu xutba Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruhu wa na'uudu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'aati a'maalina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 bokk jullit gannaaw bañ leen nuyoo ñoo ngi ziyaar suñu soppe suñu xarit suñu xarit Seydina El Hadji Abdoulaye bi ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool naan leen wér dañoo ñëwoon tey pour tukki leen leen ci xutba Baay Laay alayhi salaatu wasalaam muy suturaal sa mbokku jullit te yàlla rek tax waaye balaa boobu dañoo bëggoon andil leen tuuti rek ci li nga xamante ni moom la fi Baay Laay alayhi salaatu wasalaam bàyyi ndax ku ne xam ne sangu tedd boobu bàyyiwul kër bàyyiwul alal bàyyiwul itam matériel waaye bàyyi na fi loo xam képp ku ci defar wala nga moy yàlla dina la defal sutura àddina ak boobu àllaaxira muy xutba yu sell yu tedd yi ndaxte xutba yooyu wax yàlla lii laa wax waaye lépp lu dul lii wala lépp lu waroog lii jàpp leen ni man waxuma ko ñu jàppee ten kon bàyyi lay alayhi salaatu wa salaam lépp lu mu wax rek waxi yàlla suñu borom subhanahu wa taala la dëppoog aayam yàlla ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa sadaqa allaahul aziim kon yàlla bàyyi lay alayhi salaatu wa salaam lépp lu mu wax rek yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko ko waxloo ca la waykat ba bàyyi baas ñaan di wax na kon ku am njàccaa du jiitu ñun day baal duuñu kon kii li muy fu wóor la ko teg fu wér la ko teg kon mbokk yi nañ leen jàpp xutba yi jëfe li nekk ci xutba yi ndax wax yàlla suñu borom subhaanahu wa taala xaar ma ñëw na jukkil leen lenn ci li nga xamante ni moom lañ jëlee ci xutba yooyu muy satrul muslimin xaar seydina limaamu alayhi salaatu wa salaam man satara musliman satarahu llaahu yawmal qiyaama wa uusiikum بأن تكونوا مشاة للخير وجراسا عن الشر وكونوا في إسلام ولا تكونوا في فساد منظروا غيوبكم ولا تنظروا غيوب غيركم ومن أراد أن تظهر غيوبه فليلبس غيوب غيره نسأل الله الرحمة والمغفرة والحكم من النار بشهر رمضان المبارك وإلى ci bàyyi xel bu dem na ba ci réseaux sociaux yi képp ku bëgg a yàq wala nga bëgg a weer tey sax noonu moom ngay utiliser ndax الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآمر بالعدل والإحسان والصلاة والسلام على سيدنا إمام الله المهدي المنتظر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسب الحلال حال سيدنا إمام الله والسلام ولا تأكلوا إلا طيبا ولا تشربوا إلا طيبا ولا تلبسوا إلا طيبا ولا تلبسوا إلا طيبا ولا تقعدوا في جبهه ما تدفعون به شيئا إلا طيب وطيب هو الحلال اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ginnaaw ñu gën seytaane ñu ngi tàmbalee ku tuur suñu borom moom mi nga xam ni moom borom mi def yëpp sant yàlla bu baax moom mi nga xam ni moo digle maam ak rafetal di ñaan xéewal ak mucc yàlla nekk sant bu tedd ba Seydina Limaamu Almahdi Muntasar moo ngi saabaam ak i waa këram ak lépp lu mu jagoon ma leen di nuyu nuyu lislaam mi baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ma tasal leen ci laay laay laay waxtaan ma bëggoon waxtaan ak yéen léegi di dénkaane Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ñu fàggul lew bàyyi laay nga lépp lu ñu dugal suñu biir nga doon lu lew nga doon lu tey nga doon lu dagal ndax lu lew rek nga mën a jëfandikoo ci lu baax ndax jamono bi ñu toll lenn ci doomu aadama yi lépp lu lewul daal fekk lañ ko def bàyyi laay nee na ñu fàggul lew ndax da ngay xool moom la ñëpp bokk kenn gën ko jëriñoo lu ne ma ne alal jiw moo xam wàllu ndey moo xam wàllu baay bokk yi Baye Laye nee na lépp lu ñu nekk nga doon téye ndax Baye Laye moo ne mën na dégg maa tey soppeem ba Omar doomam mu soog a toogal ñam doomam mu soog a toogal ñam mu tedd lool Omar. macha allah. alhamdulilah. kan de leer ba dem ci mu xam ne lii mu lekk du lu lew Quran suñu jamono gii nag surtout maa ci weeru koor bii da ngay nekk sa doom mu wóor la ne xelul kontu boo dagalee ñam da ngay njëkk a wax yàlla ñam ma bakkel da nga naan alhamdulilahi rabbil alamin fekk na boobu yaa ngi wax loo xam mbokk yi kay laa ñu ne lépp lu ñuy lekk na doon lu teey na doon lu dagal na doon lu sedd nee na lépp lu ñuy naan na doon lu teey tey boobu tey moo xam oto la moo xam bi nga tëdd la moo xam jigéen la mbokk yi fekk oto la danga xoole faj loo ko daganul bu fekkee lal bi nga tëdd la to tey ko nga am nat jigéen ñoo moom loolu ndax léegi ku nekk nag lan ngay dëgg xalaat waaye lan la waaye boo nekkee nag dëgg ci lal na ba fay natt ba dal la juróom yaay te ñu des benn tey bi nan la benn nan boobu fekk natt ba fekkul ba ku ne gën la ko moom dina dugg Dakar wu ndax alal jaamu ko dëndee bàyyi laay leen lépp bu dee lépp la ñuy war nga doon tey bu dee jigéen la nga la waaye na nga génn jigéen ñi dagan ci yow moo xam góor moo xam jigéen lépp koy seetal na doon dagan ci yow bàyyi laay nee na lépp lu ñuy sol na doon bu dee bokkul secteur da ngeen a xew a xakay xew na de ndax gis yi bakkan la génn moo xam maliggéey la moo xam gestionnaire la moo xam VIP la kenn ku ne mën nga koy sol na fekk muy lu na fekk muy lu dagal ndax walaay tarko ko bii jamono jii la la gën a laaj ndax la lépp xewe nga bokk yi na la fekk ràtte ñi moom ndax lekk aari jàmbur tooke la da lay doon kees mel ni yaa moom ngay dugg du la neexee fekk moom loolu nga la mën a dénkee na nga góor góor la wun soxlaa na ko génne ci anam ba mu rafetee bàyyi laay ngeen lu tey daan boobu la mbokk yi nan sàkk lu tey dañuy lekk lu tey naan lu tey imaam Mouhamadou Sakhir yàlla yaa lekk leeram baax ci barke imaam daan kaa duñu wax ba muy wax de foofu doxul woon ñëw ñëwoon teel moo doxal ñu wax imaam nee na bul di xool ci man mi ko wax ndax damaa jublu ba ñu wax na nga xool maanaam li nga wax programme bi daayet imaam dellu waxaalis ku dul Sëriñ Tuubaa dina si ne Anta Ndaa yow day wax.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 قال سيدنا إمام المهدي عليه الصلاة والسلام الموت يطلبكم كل حين قال تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم الموت لا يأتي إلا بغتة الموت يفتح الأمال ويوتم الأولاد وينشر الموت قص الندم وكل نفس تشربه ومن شربها إن كان يفهم خيرا يندم لمن يفهم عريشا عليه وإن كان يفهم شرا يندم حداكم الله الله وصلي على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ginnaaw bi ñu musloo saytaan ñoo ngi tàmbali suñ suñu borom muy borom ñoo ngi sant yàlla ñu ngi te mu rafetal ko lool ginnaaw loolu ñoo ngi di seede amul benn buur bu dul yàlla suñu borom Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam yàllaa ko yónni moo ni woon mën a démb mën a tey ginnaaw loolu ñoo leen di nuyu nuyu islaam leen wax asalaamualeykum taala wa barakaatu mbokki jugut لأنه لن يقضي لن يتناغل بعد عليه الصلاة والسلام ndax li yóbbu suñu mag ñu baax di fi nekkoon ku mel ni suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul suñu maam El Hadj Malick Sy suñu maam Boukounta Ndiassane suñu maam Baye Niass lu suñu maam Baye Niass ba wàcc si Baye laay ñuy xayru xalqi laay muy dee nga xam ne li ñu dee du jaas si kenn فتحنا برب سبحانه وتعالى ان يخشى القران كل نفس زائحه الموت فكي بمسلم لما مسلم موك جلد نحن نرسل من يباح نيجان في باني من دي موك لا يدخل على السلم خولات من بوك شعب طب يالا على رجال يالا دخل يكب من يرول جبتة فتخبال لأن يخصب عبو سادة

اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سلمكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فدائل السلام على سيدنا إمام الله المهدي عليه السلام أوصيكم بسلام فإن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة بأركانها وشروطها Wa'ibu jawari hakum misalat Di anna salat alimah abdi Faman akama abisuhiha wa arkaniha Kahiyamiha wa rukuniha Wa sujudiha Wa dumaiha Faka annama akama din Allah Faman ahalaha Fakat halama din Allah Ya Allah Najakumullah Afakumullah sadarakumullahu amin allahumma salli maa ngi tàmbalee ci sunu tur borom bi subhanahu wa taala mi borom yërmande di ko sant moom yàlla aji màgg ji nga xam ne moom moom mbooleem mbindeef yi ak mbooleem ba mu def ci mbindeefam yooyu ay law tànn kenn ci seen biir def ko muy ngën ji mbindeef di ngën ji yonent defit xeetam muy ngën ji xeet kooku mooy Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa mu jox xéewal yàlla ci moom ak boole ni saxaaba ak ñoom ginnaaw loolu maa ngi leen di nuyu islam bi gën a tedd wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi ñëw tey di leen fàttali leen ci njàngale Seydina alayhi salaatu wa mi ni woon man a démb man bokk na ci mu daan gën a soññee muy julli yi julli ku képp ku jubali dina dindi ay ñaawteef ci nit te dina sellal ak dund ba tax na bàyyi ñu wax ni li ñuy jëkk a laaj ak jaam ëllëg yawmal mooy julli ca ponk ya ak sart ya mbokk yi nañ leen di sonal suñuy cër ci ndax bés a ngi ñëw ëllëg làmmiñ bi daan wax suñu subhaanahu wa taala da suñuy cër ñoo ñuy te naka ñu leen daan jëfandikoo mbokk yi nañ leen di jox julli jiite bu wér bi suñu temps ndax leen ci ñun jigéen ñi dañuy toog ci géewi xew yi ay waxtu yu bari di fàttee waxtu julli te bàyyi laay alayhi salaatu wa dafa fonkoon julli ba sàkkaloon jigéen place ci biir jàkkaar ndax julli mooy fondement wu islam te képp koo xam ne yaa ngi di ko jox àqam yaa ngi dundal diine koo xam ne itam yaa ngi koy sàggane di ko fooye yow yaa ngi màgg diine ba sa xabaam boobu di bàyyi libaas ñam boo wàllu. te leen jàpp tey sellal. sa sika bomuri sahol to ay ngay do ruko ya sujud kan kan ya ko yo atan bañ koy jox ba ca nya am solo ni wa allahumma najina ma najin la tuhlikna ma malikin safar sana wal mulka daiman ma mal imam muhammad mustaqim ya Allah doli ay leer yene lolu ci du'a khalas di wax istax lana allahumma baabal busra